ange billahi mina seytaani rajim bisimilah rahmaan rahim bi barakati maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babu Mouridina mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu teewlu fii ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ñoo leen di nuyu te di leen ziar baax baax di jiital ci nu nuyoo ak sunu cant ak sunu ngërëm Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak ku lu njaboot Serigne Touba waane noonu lañu ko ñaanale xaritam ba soppeem sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda faal di ko ñaanal fan wu gudd ak ak kattan ak ku lu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu diine di jaajëfal mbokki taalibe yépp rek góor ak jigéen mag ak ndaw fépp waaye mën a bàyyeeko ko wala ngay déglu kàddu gi rek ñu ngi lay jox ab nuyoo di jooyante sunu cant ak sunu ngërëm ci yow di ziar bu baax a baax euh, waa mbooloo ànd liggéey sëriñ Saliou di ay jàmbaar yoo xamante ni ay jàmbaar ñay xare la ñu am ab bis bu ñuy waajal di ko taxawal di jiital ci nag nuyoo bi bu baax a baax sunu jëwriñ sëñ Jili Seck zone Touba di ko jaajëfal bu baax a ci liggéeyam ak pas-pasam ak jëwriñ ji nga xamante moo topp ci ginnaaw di jëm jëwriñ général sëñ Sidi ñu ngi koy nuyu di ko ziar baax a baax noonu la ñuy ziaree ba xam zone Ngaabu di leen jaajëfal seen pas bu baax a baax a baax ci jiital Serigne Lo ñu ngi koy nuyu di ko ziar a baax ak ki topp ci ginnaawam euh, di mbokkum taalibe boo xamante ni saa su nekk mi ngi def liggéey bu am solo ku ci nekk ñun rek bàyyi na ko xel bu baax a baax kon it dañuy daal di doxaat jëm ci liggéey bi nga xamante ni moom lañuy joyante jëmale ko fële ca Ndakaaru di nuyu njiit la Euh, sëñ maam maam Cheikh Anta ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di ziar sëñ Moutala ak mbokki taalibe yi nga xamante ni ñu ngi bokk ci mbooloo ànd liggéey Serigne Saliou di jàmbaari ñay xare di bëgg lépp mu jag xam naa maa ngi fegoog suñu jëwrin euh, di jàmbaar euh, kenn du ko présenté waaye xam naa ne bu leen image bi dalee di ngeen xam jëmm ji nga xamante ni moom la ñuy waxal muy Baye Djili Seck nga xam ne ku ci nekk xam na ko liggéeyam pas-pasam ak njàmbaaram ci liggéey bi ci def dooleem ak pas-pasam ak xelam ak xalaatam lépp Baye Djili ñu ngi lay nuyu te di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 sunu cameraman bi nga xam ne moom la ñu jàkkaar lool muy sénéral Diané di généralu Serigne Salimu kon suñu as ñu delloo la kàddu yi incha allah. jërëjëf Baye Djili ñu ngi lay ziaraat baax a comme ni nga waxee rek di jaajëfalaat baax a baax général Serigne Saliou Baye Sidi Diané moom nga xam ne jàmbaar la wax dëgg yàlla image ngay gis muy leer ak netaal yépp ci moom moomu lay euh, balle te kenn du ko gis ci netaal yi te loolu ak bëgg la ak pas-pasam ak jaayanteem Baye Djili ñu am bis bu mag bu ñuy waajal ñu mën nañ koo jàpp sax ni journée culturelle la. ndax waa mbooloo ànd liggéey Serigne Saliou euh, daara ji daa doonoon fondation xidmal Serigne Saliou euh, te booy tàmbali am néeg fondement da caa am solo ba boo dikkee bâtiment boo ko mën a yen mu yenoo ko ñu dem ba ca biir ba fondement bi taxaw ñu wut bugg a ay briques teg ko ci kaw mu dox ñu bugg soppi tur wi def ko mbooloo ànd liggéeyal Serigne Saliou mu mel ni loolu ay briques yu ni jël tegle ko kenn ku ci nekk war ngaa doon bi nga xamante ni mooy doxal bâtiment bi ba bâtiment bu mën a teg ci kaw mën ko àttan liggéey bi ak joyante liggéey bi lan mooy solo si waa suñu as euh, xam naa li ñu njëkk a def rek mooy di delluwaat sunu kàddu fi ñu ko tàmbale woon di siyaare bu baax sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom sëriñ Saliou sunu boroom yàggal ko fi sunu kanam te ko di siyaare bu baax kilifa bopp sunu sëriñ sunu jëwriñ sunu lépp sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ Amdi sunu borom yàggal ko fi moom itam te ko ñu yàgg ànd ak moom liggéeyub sëriñ Touba bii mu yàgg noo jiite barki sëriñ Saliou xam naa laaj nga laaj bu am solo muy mbooloo ànd liggéeyal Serigne Saliou bi nga xam ne dañu koo taxawal te tur yi njëkkoon a doon fondation xidmal Serigne Saliou euh, ku ne xam na ne ni nga ko waxee rek kuy tàmbali ab liggéey la ngay jëkk a def mooy boo tegee say kano ba noppi da ngay fondation boo fondement ba taxaw donte fondement ba moo yor lépp waaye kenn du tudd fondement ba da ngay tudd la nga xam ne mooy jëmm te jëmm mooy booloo ànd liggéeyal Serigne Saliou te booloo boobee la ko def mooy birig yi nga tegale ba mu taxaw. ne collu ca kaw loolu moo waral booloo gi am solo gi nga xam ne am na ko solo it mooy ñun dañuy ay ndaw te sunu jëmm yi ku ko xaroon sëriñ bi rek nga ciy fekk mm-hmm. te sëriñ bi def ci noonu loo xam ne buñ ko jéemoon a fay wala ñu xar sunu jëmm ji di ko def ay ay saam ngir jéem a fay sëriñ bi duñ ko man ndax guddil nañu bëccëgal nañu daj na ci noonu lay kon nag buñ demee ba wëlbati ko nekk ci sunu soxlay bopp saa bu ñu lambee daj ko kon war nañ ko jema delo delloo loolu ma waral ñu sos li ngir jema delo delloo sëriñ bi ñu war am nak, euh, ndaje bo xamne ne ndaje mu yaatu la ni nga ko waxe rek muy sourné culturelle ngir euh, mbolo yi nga xamne ne ñoo bokk liggéey bi ta fasanti ko ñu dajé ci barab ñu waxtaan xol nu ñuy gëna nasu nasoo liggéey bi ak nu ñu ciy gën a mën ak mbokki soppé yi nga xamne ne soppe sëriñ bi lañ nga xamne ne kenn ku ci nekk ci ñom rek amna bis bo xamne ne nga nekk ci ak jaaxle nga làmb daj sëriñ bi ah, loolu tax ñu ànd ko ak ñoom ñoom tam ñu man ñu ci fuuf di ci def loo xam ne euh, wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñuy tudd ne dañoo jaar ci keppaaru sëriñ bi sax ñoom liñ ciy def ñun mënu ko mënuñu ko ci kon lii mooy solo si nga xam ne bokk na ci li tax ñuy jéem a nos liggéey boobu ngir jéem a delloo njukkal sëriñ bi jërëjëf jërëjëf baa Djily ci leeral bu am solo bi nga xamante ni premier ponk bi nga tijjee leeral ko am na solo macha allah mu mel ni mbooloo mi ay donga tarbiya ñoo ko tijji sos ko di ko liggéey mu dem ba neex mbokki taalibe yi nga xamante ay soppe leen ñu ñëw tàbbisiwaat ci mu mel ni jaar ci daara ji ak jaaru ci daara ji lépp rek mooy jum jubluwaay bi daal mooy bëgg sëriñ bi di dox ci li nga xamante mooy saatu liggéey bi mm-hmm. kon yaakaar naa mbokki taalibe yi ñu gën cee bàyyiwaat xel gën cee defar yite ñun ñi nga xamante tamit ay wax ay waxkat lan tamit eh, ñu am pas-pas boo xamante ni ab engagement boo xamante ni jël nañ ko ci xëy na jaaruñu ci daara ji waane buñu toogee mënoo xam ku jaar ci daara ji ak ku jaaru li mbokkum taalibe bi waxoon rek Serigne Saliou am na ñoo xamante ni dañoo jaar ci daara ji mu defar leen am ñoo xamante ni da leen a fekk seen biiri këri waajur defar leen am ñoo xamante a fekk seen biiri waajur ganeegun àdduna mhm. mu defar leen am ñoo xamante ni netaalam lan gis mu defar leen ci loolu mhm. yaakaar naa ak bëgg mënta weesu loolu mhm. mu mel ni boo soññ ci mbokk taalibe yi nga xamante ni ñooy zone Touba avant ñu dugg zone Dakar ci jaayante bi ak pass ak ak déplacement bi ñu war a def fekk ji waa Ndakaaru waaw yaatu na lool ñëpp a ngi koy dégg waaye nag euh, soññe dafa mënta ñàkk ndax mbooloo bu njee ànd mu nekk am na ñu ñu teg ca kanam ni leen yéen yéenee doxal ñooñu ñu teg ca kanam ni leen yéenee doxal nag nañ na leen leer na ñoom bu mbir ma doxee ñoom la bu mbir ma sooxee ñoom la kon loolu dañ ciy jiital ñi nga xam ne ñooy euh, ñi nga daara yi nga xam ne dañ koo dañ koo sos teg ko ñu jël ay membre dugal ci biir daara yooyee am ñu ñu jël toftal ca seen kanam ni leen yéen yéen a koy doxal ñooñu nañ nañ jàpp ne lépp lu ñu leen dénk euh, nañ ci bay seen waar seen kem kattan euh, kon ñu ngi ciy profité di ci woo mboolem daara 1 ba daara 8 di leen fàttali liggéey bi di leen xamal fu mu toll ku ne xam na ne ñu ngi ci cëppaandaw gi ndax lu ñuy waaj ay weer ba mu des loo xam ne matutut sax fukki fan yaakaar naa ne kon agsi na ba noppi kon ñu ngi ci woo ñëpp bàyyiwunu kenn di ci wo eh, mboolem daara yep di tambule ci daara yi ngaabu ji nga xamne moy wara mo wara lepp mm-hmm. di ci wo son Touba ak wa Ndakaaru yi nga xamne ñom lañu fekk ak wa Thiès wa Mbour ak waa Kayaar ñëpp bàyyiwunu kenn mm-hmm. jërëjëf jërëjëf Baye Djily mu mel da nga tuddu sànq point bu am solo ñu tuddu li nga xamanteni moy daara 1 ba daara 8 Euh, ñu xam ne loolu ab liggéey la boo xamante ne am na mbokki taalibe bi yoo xamante ni ñu ngi seetaan te xamuñu lan moo ënd loolu ak liggéey bi doxin wi ak pas-pas bi ndax mën nga ñoo leeral ci daara 1 ba daara 8 lan mooy sabab bi waaw loolu li ko waral mooy bi ñu sosee liggéey bi dañ ko lancé ñëpp dégg ko ñu woote ngir liggéeyal sëriñ bi mbo mbokk yi fekk si ñu ci liggéey boobu bi ñu ko defee ci tàmbali bi it mbooloo mi amagutoon doole ngir man koo tisaare waaye bi ñu demee dox ay weer yu néew xel yi ubbiku xalaat yi gën a yaatu ñu ne léegi nañ ko yaatal yaatal googu it mooy buñ ko defee benn daara ñëpp daje fa kenn nit mënta soññ ñëpp waaye buñ ko yaatalee ber ko ay daara li tàmbalee 1 ba 8 daara ju nekk am lu mat fanweeri nit wala fanweeri nit ak lu topp ñu di jiital ñetti nit ca biir daara jooje ñu di leen soññi loolu dana gën a jàppandal liggéey bi te gis nañ ci njariñ bu baax ñun ñi nga xam ne dañoo yor wàllum mbind ak ay yu ni demee Eh, loola it eh, njariñ liñ ci gis ñun mooy bi nga xamee ne defaguñ ko woon daanañ ci am gàllankoor lool daan metti lool ci ñi nga xam ne ñoo séqoon wàllu mbind moom yi waaye ko defee noppale na lool eh, te ñoom itam wax dëgg yàlla ñu di ay jàmbaari fàkkatan yoo xam ne sëriñ bi jaral na leen lu ne ñi ngi yàq seen guddi di yàq seen bëccëg di yàq seen temps di yàq seen lu ne ngir liggéeyal sëriñ bi mu ñoŋ ak mu jag mu jëm ca kanam kon ñu ngi leen di mention spéciale di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom itam jërëjëf. jërëjëf Ba Diir ci leeral gi am na solo macha allah mu mel ni boo doonee am mbooloo tënku fenn. ñu dem ba liggéey bi gën a yaatu gën a yaatu gën a law. ba ku ci nekk ñëw wàll si. mbooloo bu ñëwee nan lañ koy accueillir ak nan la ñuy téye mbooloo ndax ku nekk ñëw di wàllu si. Mm-hmm. waaw mbooloo moom bokk na ci ni ñu koy téye mooy di leen laaj loo xam ne mën nañ ko mm-hmm. te fi nga koy defee ñu xam ñu ko. ndax doomu aadama ñaar bokk na ci li yàq ab ànd muy tege lees mënut doomu aadama saa boo ko tegee lum mënut da nga dem bu koo jariñoo te doo ko jariñoo doomu aadama saa boo ko tegee lu man ba noppi mu gàntu ko dana dem ba moom ëllëg si biir mu bëgg laa jariñoo te la mën a jariñoo kon mbooloo bokk na ci nañ koy téye mooy bu ngeen àndee ngeen di waxante dëgg tey jariñante ndax doomu aadama saa su ngeen di ànd rek kenn ku ci nekk bis bu nekk war naa am lu mu jariñ moroomam loo xam ne jariñu ko woon démb muy yokk loolu moo de ab ànd tañ di jàppalante bu baax a baax euh, loolu rek moo doonoon njariñul ànd bi euh, fu ñu toll dañuy def mbir yoo xam ne mbooloo mi danañ ci gis seen bopp te dana leen jariñ te danañ danañ yëg ne lii kat laataa ñuy dugg ci mbooloo mi amuñ ko woon wala mënuñ ko woon waaye bi ñu ci duggee rek lañ ko man te loola yëmalewuñ ko suñu bopp dong ndax lii ñu ñu samp ni daara lañ ko jàppee la ñuy jàngale ca daara ja rek lañ fay jàngale lépp loo xam ne moom la ñuy bañ ca daara ja rek loolu lañ fay bañ doxin yooyu yëpp rek dara génnu ci daara ji kon loolu rek moo doonoon doxin wi jërëjëf jërëjëf Ba Jili leeral gi am na solo bu baax a baax ndax buñ bëggoon a xam ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi seetaan hmm. ndax gis nañ doxee nu liggéeyu mbooloo andi liggéey Serigne Saliou mu neex leen xëy na bu tàmbalee na ne ci juróom benn weer lay toll wala juróom ñaari weer bu ñu koy xayma rek xëy na ci lay toll mm-hmm. mu ngi ñu gis ni def na liggéey bu rëy boo xamante ni ku ci nekk jàpp nañu sax am na ay at la am mm-hmm. lan mooy jubluwaay bi lan la jubluwaay bi mooy jëndul leen lu liggéeyal sëriñ bi rek mm-hmm. ndax biñ ko tàmbalee léegi ni nga ko waxee léegi ci juróom-ñaari weer la toll waaye wax dëgg yàlla liggéey nañ ci liggéey yu am solo yoo xam ne wax dëgg yàlla ku yàgg topp liggéey bañ ko tàmbalee ba naga ni xam nga ne ni euh, gars yi jàmbaar lañu ndax ci seeni objectif Moy di taxawu daara serigne salihu ji ci ngaabu donte daara ji serigne bi mi ngi koy defal bopam manal na bopam lepp waye rek ñun dañ ciy barkelu ngir jaar gañ fa jaar tay nit ki fepp fo xamne ne jariñoo na fa warna na fu mu toll di ko diko di ko di ko di ko ndax ñun jamono yi ñu fay nek dañ daan gis ay nit jógee ci àll ba di ñew ci serigne bi di sakku ci mom ñaan mu yabal leen fofé ci daara ja yabal leen ngaawu ne leen dem leen ngeen bégal donga ya ta sakku ci ñom ñaan lu ñeen ñaanal rek dana leen dal te ñun itam loolu yombuñu dañoo war dem di leen bégal di leen seetal seeni sër bu ñëppee ñu sàkku ci ñoom ñaan ñu ñaanal ñu te loola ba tey e, ci yoon woowee la ñuy dox mu bokk ci loo ne bëgg-bëggub sëriñ bi la woon muy daara joojee te waxoon nañ ne sëriñ bi wax na ne képp koo xam ne amul ci yow yaakaar du la fa yóbbu kon ñun dañoo jàpp ne ñun ci ci ci ñi nga xam ne sëriñ bi am na ci ñoom yaakaar ñooñu ci lañ bokk ñun moo xam ci da nga faa jaar moo xam da ngaa am pas-pasu ñëw liggéeyal sëriñ bi ca daara joojee kon loolu rek mooy jubluwaay bi euh, muy sunu delluwaay bépp daara ji la moo xam xel koom la moo xam gàmmu la moo xam lépp loo xam ne daara ji yittewoo na ko tam doon loo xam ne ñun buñ ci doxee mën naa am loola sotti ca loolu la ñu dox loolu rek mooy mooy mooy jubluwaay bi. Hmm. jërëjëf Ba Djili kàddu yi rafet na amati na solo la ñuy wax. amati na solo la ñuy wax ndax yaakaar naa liggéey bi moom kenn ku ci nekk yaa ngi koy gis. fépp ci réew mi ba ci waa bitim réew sax ñu ngi wootee di di rafetlu liggéey bi ak mm-hmm. doxin wi ak joyante gi ne joyante nañ ko mm-hmm. ndax euh, dajale wun di dem siyaare ji ab sëriñ xam mm-hmm. ne ab sëriñ tamit am na solo lool neex na waan tamit sëriñ bi la nga ko delluwaat ci daara ja ko sa bopp daara ja ñu xam ne kat lii liñ liggéey fi ñu jàngee alxuraan ba am xam-xam bi fa leen ñëwaat sottiwaat fa seenu ñaq ñu xam ne sotti ci la ak def ji la dañu da ngeen delluwaat mbootu ca ndaa la ñu gis nañ tamit yéen def liggéey bi am solo di fóotali ndongo yi te yaakaar na loolu am solo barki démb rek ban demee ngaabu di yóbbu fóot bi nga xamanteni ni won woon non ko don ko yóbbul ndongay dañu dañoo rek ñun ah wa fondation baa ngi nii kon yaaka na ragne gu ñuy ragne yaaka na am leneen lo xamanteni mi ngi koy def ci ñun surtout yeen jëwriñ yi nga xamanteni yeen ñu jité waaw mom ndegam yalla dogal na gaabu moy suñu yobul way moy suñu lepp tey ñun sëriñ bi rek la ñu am te yaakar na ne kuy dak sëriñ bi dak ko ci ak njabotam mo ci gëna gaaw ak foko man di dak rek dak ko ci njabotuk sëriñ mo ci gëna gaaw ta te tank ye fa nek ko lamb seen xol sëriñ bi kep nga ci dacc anta ku ne gis na sëriñ bi bëgg bëgg mu doon ay tutank kon ñun bu fekkee ne bëgg nañu dab ngeerum wala bëgg nañu dab bëgg-bëggam dañu gis waat tutànk yi mi nak day lo xamne ne même bu ton donga ngay sax setal set set an nasaafatu min al iman maam set dafa bok ci ngëm yalla Ta food gi ñi dem di leen fotal ñun suñu jariñ la donte ñom man nañ ci gis seen bopp waaye ñun suñu jariñ la nim doone suñu jariñ moy euh genn goor gu baax dama ma sa wax ne ma ku amee tànk yu metti boo demee ci ay donga nga fóotal leen seeni sér ba mu set euh, nga jël fóotit moomee nga jël dugal ca say tànk nga raxas ko ca suñ borom mën naa mën naa dogal nga tàqali ko ak tànk ak mettitu tànk yooyee rawatina donga yoo xam ne xasida ak alxuraan képp lañu xam xamuñu laneen xamuñu seetaanum tele mm-hmm. xamuñu laneen mm-hmm. xasida ak alxuraan rek ñooñu kon kuy dàkk bëgg-bëggub sëriñ bi yaakaar naa boo fa diiree sëriñ bi da ko jam waaw loolu rek moo doon sunu sunu sunu yitte ci ci mi ci ak ak ak liggéeyal sëriñ bi. Mhm. jërëjëf Baye Djily ñu ngi lay jaajëfal bu a baax noonu la ñuy siyaare bu baax a baax sëñ Mara Seye borom jinne yi di jàmbaari sëriñ Saliou nga xam ne moom ci daara ji la bawoo wax dëgg yàlla doon jàmbaar ne ci liggéey bu am solo moom moo yor kàddu daara ji xëy na dañoo sob di wax rek mu jox ci kàddu gi ni ñuy waxal mhm. waaye wax dëgg yàlla li ñuy wax moo ñu gën a xam moo ñu gën bu baax a baax Baye Djily ñu bi nan la ñuy waaja pour dem fekk ci waa Dakar waaw wàccaay wi moom niñ ko bëgg a defee rek mooy ndakaaru dafa am mbooloo mu fa nekk moo xam ne dongay sëriñ bi lañ mm-hmm. am ñu fa nekk ñoo xam ne soppee sëriñ bi lañ tuubaa gi noonu am na fi nekk ñoo xam ne dongay sëriñ bi lañ am ñu fa nekk ñoo ne soppee sëriñ bi lañ tañ bokk liggéey bi ànd tam mënuñoo tàqalikoo mm-hmm. ñu war a daje foofa nag ngir waxtaan ni ñuy def ba gën a nos liggéey bi ak ni ñuy def ba mbooloo mi gën a yokk gën a yaatu loola it bokk na ca wàccaay wi mooy euh, doxin wi ci doon dox départ bi ñu ngi koy déparé fii kër Serigne Salihu gi ci jumaa ji képp koo xam ne bëgg ngaa dem paas bi mill la aller ak dañuy dem insha allahu dellu soir bu soobee yàlla ndax euh, fanaanuñu fa dañuy dem rek euh, waxtaan lañu war a waxtaan daal di wàññi waat bu soobee yàlla insha allah timis mën nañoo fekkaat fii Touba wàccaay wi it waaj nañ ko wàccaay wu am solo. Hmm. wax wàccaay wu mucc ayib. rawatina mbokk ya nga xam ne ñoom lañ fay fekk ñoom itam wax dëgg yàlla jàmbaar lañ sonn nañ ci jël nañ seen alal jël seen lu ne def ci ngir bis bi jag. Hmm. te loolu lépp ñun ñi nga xam ne eh, ñu ñun ay ñun ñoo doon ay donga loolu ñun la waroon. Hmm. ñun ñoo waroon jël suñu alal miraasu def ci lépp ngir yaatal liggéeyub sëriñ bi ndax fi mu ne nii lii du doonul ne mbooloo ànd liggéeyal sëriñ Saliou rek ñoo koy def. dafa doon loo xam ne bisub bisub liggéeyal sëriñ Touba la. Mhm. waaw bisub liggéeyal sëriñ Touba ndax yaatal liggéeyu sëriñ bi la. kon loolu ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp koo xam ne bokkoon nga ci ñu ngi lay tàllal loxo ci dem bi koo xam ne bokkoo ci woon te bëgg a bokk ci mbooloo mi wala nga bëgg a dem ñu ngi la ciy tàllal loxo di la wax ne la euh, demukaay yi lépp jàppandi na. Mhm. koo xam ne yittewoo ngaa dem te Euh, sa sa sa gafak euh, sa nafag li ci nekk tax koo demee noonu mm-hmm. boo jokkoo danañ la fexe teg ci yoon woo xam ne danañ mën a fexe ba nga dem insha allahu rabbi jërëjëf jërëjëf Ba Djily mu mel ni am nga yéene àggale li nga xamante ni mooy liggéeyub sëriñ bi ci bëgg gi nga xamante ni moom la bëgg tuutànk yi yow it yaa ngi taxaw taxawaay bu mat sëkk ndax wax dëgg yàlla gis na li nga ciy daj bu baax a baax yow ak jëwriñ général Serigne Saliou ak mbokki taalibe bi Serigne Mara Sey Serigne nga a baax la yi xamante ni ay waxaakoon lan ni ma ni saa su nekk ku ci mel ni ambassadeur Serigne moom mi ngi foofu ci diwaanu Ndakaaru moo nekk yor wàllu communication foofu ci zone Dakar ak mbokki taalibe bi nga xamante ni ñu ngi diwaanu Ngaabu di ñoom jàmbaar lool wax dëgg yàlla ndax saa su nekk mi ngi def liggéey bu am solo ku ci nekk ci ñun war ko bàyyi xel bu baax a baax xëy na yitte yi dana xat hmm. dina dina mi ngi bàyyi liggéeyam ak jaayante gi mu jaayante ak sëriñ bi te xam ne liggéey bi li ci am solo mooy hmm. eh, jaayante muy sëriñ Badou Sarr nga xam ne mi ngi am solo hmm. ndax dëgg yàlla rafetlu moo tax sax ma ni jëwriñ général man da a kenn du leen ci man te yaakaar naa ci ñi mujjee taxaw zone bi mujjee taxaw mën na ni ci la bokk kon yaakaar na loolu tëfeel bu baax a baax bi nga xamante ni ñi ngi ñuy bégg saa su nekk di suñu jëmm ju xeebu ji ak gis nañ tamit taxawaay bi ak pas bi ak bëgg gi nga xamante waa daara ji bëgg nañu ko suñu jëmm ji xeebu ji ñu ngi leen di ñaanal ci barkeb Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne moo amuk gi nga jaayante diggante ak Serigne bi yàlla nañu Serigne Touba ak Serigne Saliou defal a ah, tàggatoo gi da xanaa sant rek mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi euh, ni ma ko waxee woon léegi rek euh, di jiital ci sant gi euh, général mi nga xam ne wax dëgg yàlla liggéey fu mu yegg moo ko fa yeggale mm-hmm. ni ma ko waxee chaque jour rek nit ki lenn lu ci nekk dafa am ci loxo yi ko yàlla di jaarale teyit nit ku nekk dafa am lu man boo ko ko joxee mën nga cee gis résultat waaye saa boo ko xañee mën nga cee gis wàññi wàññin mm-hmm. te ku ne xam na ne lii ñu ko dénk jàmbaar la ci tamit ñu ciy doxal waaram kem kattan mm-hmm. ñu ngi ko ciy sant di ko ñaanal fépp foo xam ne bëgg na faa yegg ci liggéeyu sëriñ bi yàlla na ko sëriñ bi teg loxo mm-hmm. di sant bu baax euh, sëñ Modou Seck euh, di sant sëriñ Alhaaji Mbay di sant bu baax sëriñ bu euh, Boussa moom yi nga xam ne moo jiitee Daara 4. Mm-hmm. di sant baax lu Fallou Seck euh, Serigne Moutala Dieng. Mm-hmm. sëriñ Cheikh Ibra Lo sëriñ Badou Sarr ni nga ko waxee léegi. son nga wax dëgg yàlla biig rek maa ngi déggante ak sëñ Badou ñoom itam ñuy jàmbaar yoo xam ne sëriñ bi lekk leen ñor. Mm-hmm. te it loolu moo leen war ndax sëriñ bi dafay romb dëkk yu bari dem ba Ngaabu mu samp fa daara kon waa Ngaabu bu ñu mënee ci liggéey bi. Lol du asar, mm-hmm. ndax serigne bi mo len mo len mo len mo len xol ñaari beutam mm-hmm. waaw kon loolu euh, du miracle. Mm-hmm. tawféexe serigne bi la. ñi ngi leen di sant ñoom itam bu baaxa baax euh, di sant mbokki ndakaru yépp euh, serigne mam Cheikh Anta Thiam mom itam ñi ngi koy sant bu baax. diko siara diko ñaanal jam ak tawféex muy jambar jo xamne mom itam wax deug yalla lepp lo xamne wax na la ko rek loolu nar. waaw tayit muy jëm jo xamne serigne bi ko defara yaral ko bopam kon bu melee noonu du du du du du du du du lu ñu yéem mhm. waaye ñu ngi sant ñëpp di sant bu baax euh, sëñ Mara di sant bu baax sëñ Xaadim bàyyiwunu kenn waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf mbokki taalibe bi kon lii leen daal indi woon ci jotaay ak leeral bi nga xam ne mooy wàccaayu ndakaaru bi di rencontre générale di journée culturelle ñu ngi leen jox di day incha allah la 14 incha allahu taala jërëjëf